ñu ñëw tëj ñoo tëj moom liggéey moom <laughs> ñu dafa xamul ñu ngi gën a rafet. ñu ngi ah. gën a liis. ah, ah quand même ah, dañu koy door rek euh, Salma actualité bu ñu waxee sax sans waa Biébo mun nañ toog sans salaire. mu ne ah, mun nañ toog sans foofu ah, baaxul génnal foofu waaw waaw. dama ne ndax génnal foofu. Ah, génnal foofu ñu ñu dooree ko rek ak euh, actualité euh, people yi bi la yoon nag euh, dañu koy jëmale rek ci maître El mm. mu mel ne nag dañu rëkk ndiggam waxtu wi mi ngi noonu loxo wa ca gémmiñ ga jommees mën nañu jàpp ne moom la def waxtu wi ndax kuréel gi ëmb mbooleem avocat ci réew mi. Mm-hmm. ñoo jël ab dogal suspendre ko ndax jàpp nañ rek yenn ya nga xam ne mu ngi koy doxalee ci yoon moo waral nag euh, ñu jël euh, lépp loo xam ne nag ay euh, ndombal tànkam la ci lu ñeel avocat ñu teggi ko la ko euh, ña ko amal sax nag di ordre des avocats bu réew mi jàpp nañ ni rek moom maître El Hadji Diouf na muy euh, doxalee doon loo xam ne bokkul euh, ci éthique ak déontologie ya nga xam ne nag ñoom waa ñiy sol rob bi ñu ngi koy amal ba tax na sax dañu jël ay mbiram nag tegee ko bor jusqu'à nouvel ordre mu mel ne mhm. désormais dootuñu wax ni El Hadji Diouf El Hadji la ñuy wax am na benn extrait bu mu àndoon ak Adji Sarr mën nañu koo xool lekk yooyu tamit bokk na ci yenn comportement yi nga xam ne nag euh, ci askan wi dañu ko ŋàññ jàpp ne rek euh, na muy doxalee ci avocat yu njëkk ya nañ leen daan euh, tegee ca kaw ñuy am classe di doxalee yenn yi mm-hmm. moom bokkul ci na nga xam ne moom mu koy doxalee déjà moom mm. bi ñu ko gisee procès mm-hmm. Adji Sarr Ousmane Sonko bi téye na loxo aji bi di ko loo doonu loo xam ne da baaxoo nañ di ko gis ci ay avocat wu réew mi. Mhm. maanaam moom kaawam spécial la. jàpp nañ ne amul tenue ak retenue. amul tenue amul retenue daf ñuy saaga ñun journaliste yi. da nga koy mhm. woo mu xas la ba nga naan <laughs> saaga la tegal sa place. y compris keneen ak keneen noonu mi euh, bi mu mel ni désormais El Hadj Diouf la ñuy wax. Mhm. Euh, pour préciser. El Hadj Diouf seetaan aussi. Me euh, El ko. non waxuma dañu ko dàq dañu ko suspendre dañu ne dootuñu waxati maître non loolu tollooguñu foofu ñu la bu ñu la bu ñu sa sa sa liggéey. Mhm. dañ lay convoqué. Mhm. commission dañ lay convoqué je crois que c'est la semaine prochaine. Mhm. toog waxtaan ak yow. pour xool ndax dañuy dañ koy suspendre wala dañ lay dellowaat ba pare avertir la wala waxtaan ak yow wala wala recadrer la. mais du affaire du maître El Hadj Diouf wala wala. d'accord ci ci ci ñu koy ñu koy masaw bu baax ndax ni ni mu nekkee euh, waxtu wi metti na waaye nag teewul fi mu ne nii du ñu waxati maître El Hadj Diouf El Hadj la ñuy wax ba mu waxtaan ak ordre des avocats ba euh, pare. voilà euh, leneen la ñuy àddu jëmale actualité la ci réew mi bokk na rek ci signalu Walfadjri bi nga xam ne nag dañu ne ko tapit coupé mu doon mbir moo xam ne nag waxtu bi foo toog euh, moom la ñuy euh, waxtaane mel ni mën nañu rek la ko soobee di meeting bu Mbàkke ba nga xam ne jot nañu ko amal mm. ci ay euh, mbirum signal sax nag fa la dooree ba ñu mujj koo dagg ndax boobu la meeting mm. dafa mujjee jur ab cooki waaye naka la ñu fa mm-hmm. nemmee ko bokk na rek ci lacrymogène ya nga xam ne dóor nañ ko ci ay bat am sax yu dugg yoo xam ne yu ñaaw la ci réew mi tey nag euh, dañu jàpp ne rek fooleem euh, mbooleem euh, gox yi ci Sénégal am nañu droit ñuy jot yenn ci ay information ba tax na la ñu duppee Walfadjri di la voix des sans yor ay mm-hmm. tànkam di dox di dugg fu ne Pape Gora du romb yenn événement ya nga xam ne nag dafay soxal askan wi ngir nga xam ne nag daf leen di gindi mu romb ko di dem loolee sax moo waral nag ñu coupé boobu la signal. Mm-hmm. ka def lu nu mel nag tapenda bu baaxee ñu xool photom mi ngoog Babacar Diagne bu Sénéra mu ngi. Euh, Bab su mën lépp Bab su mën jotuñu ko xam wala sax ci buñ ko xamee. <laughs> Euh, ci coupé signal lañu ko xamee mi ngoog gannaaw nag euh, appel ba nga xam ne. jaarale na ko ci euh, directeur bu Walfadjri di xam ne rek Moustapha leeral ko waaye nag mhm. wax waxaat mën nañu du bëri du bëri wax <laughs> xam ne na ni euh, yenn ca ña nga xam ne dañu koy euh, fësal doonu loo xam ne lu tegu ci yoon la ba ñu dagg ko nee nañu sax ba le ma vendredi prochain mm. ci ay wax yoo xam ne sax amaana mën nañu jàpp ne leeragul waaye nag direction bu Walfadjri mën nañu ne rek ñoom ne fas nañu yéene jël ci ay mesures di xam ne ni rek mbooleem la nga xam ne ni ki tey sax ci altine bi dinañu déposer ab recours ngir ñu annuler ma mesure yi nga xam ne c'est illégal ki li nga xam ne mooy Babacar Diagne bu Sénégal jël ko mi ngoo kii Babacar Diagne c'est la belle question que l'on se wax nañ aussi que ni ki tey dinañu euh, saisir toutes les euh, juridictions compétentes waaye am na aussi ay yëngu yëngu yëngu-yëngal yu nga xamante ni kër gi prévoir na ko dinañu aussi def benn sitting devant euh, siège CNRA pour mm. demander la démission mm. de Babacar Diagne mi nga xamante ni jamono ji dafa waroon a tëddee ñaaxandaay tëddee doxal doxal doxalinu kilifa mais dafa yor yotam di door euh, Walfadjri donc euh, c'est pas la première fois. Mm-hmm. répétition la mais bon euh, mu nekk autant de. Ehm, pratique wala ay doxalin yu nga xamante ni jamono ji Walfadjri ñu ngi koy waajal ndax démb gis nañ live bi nga xamante ni directeur général bi Moustapha Diop def na ko def ci ay révélation wax ci ay information yu xamante ne ñun euh, personnel Walfadjri wala képp ku nga xamante ni jamono ji da ngay safoo Walfadjri mhm. yaa ngi toog di déglu rek bu mot d'ordre bu jógee rek ñu daal di doxal mi ngoog bab su mën lépp danañ ñëwaat ci ay mbiram euh, Mélanie maa ngi dikkaat rek euh, waaye nag keneen ci lu ñu nemmeeku ki soobee sax boobu boobule a gannaaw sax ya fi jotoon jàll jàpp nañu rek ci yenn ay élection ñoom ba ñu def Pikine dañu ko couvrir bu Thiès bi aussi direct la ko def euh, te dara ñaawul mais comme demee na ni nañu nañu nañu nañu wëyal lekk euh, ci euh, ñoom seen i mbir bi mbir mi amee nag ñu ngi wax dañuy def amal ay visite gis nañu nag yenn ci ay euh, wala sax ka bokkees ci opposition bi ñëw amal ab visitam fii ci euh, Walfadjri bu élément bi baaxee rek ni ni waxtu wi demee la bu dee baaxul lekk dañuy jàll ñëw nag massawu mbooleem ñi nga xam ne ñoo fiy liggéeyee ci mbir mi nga xam ne moo dal seen i kaw ji yaay yëf julli nag ndax jàpp nañu rek euh, bu mbirum ñaawteef amee ndax mënuñ ko qualifier lu dul ñaawteef mm-hmm. baax na ci ñenn ña nga xam ne nag dañu amal jàmm wala sax dañuy taxawu askan wi ñu fekk si leen rek tey sax mënuñ ne moom kese ndax ba ñu ñëwee gis nañu askan wi tamit nañu feesee woon ci buntu Walfadjri image yaa ngi noonu doon euh, di jàll wala sax daañu ci ñëwaat waaye nag keneen ka nga xam ne kilifa la fii ci euh, Walf moom it euh, déglu ñu ay kàddoom di Ahmed xalifa Niass bu baaxee rek ñu taataan ma ñu déglu ay kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati néeg yi ci kër gi moo moo yore sama kër moo yore kër Sidi taaw mu tuddee ñu ko ñun ñaar siidi Ahmed kon nag loolu dara weesuwu ko man nag maa ngi toog bu yóbboo ngeen utal ma uh, basan waaw déedéet fii laay tëdd kay bëgg signal bi dellu si ndax leen day jaaduwul kuy ñëw di masaw fekk ma fi ndax kenn warta ñëw ne ah ana ana Sidi Lamine ñu nekku fi ana magi Sidi Lamine ñu nekku fi déedéet bu fekkul Sidi Lamine na fekk koo xam ne mooy Sidi Lamine waaw léegi kay fi mu ne nii wax dëgg yàlla euh, dugal nga ñu ci koñ boo xam ne war leen ci woon a dugal war leen ci woon a war leen ci woon a dugal waaw donc nag wax ji buñ ko toppee bëgg naa ëllëg du jeex ndax mar euh, mer day ëpp doole boroom waaye yonent bi sallallahu moo wax ne man ba walam yaxdab fa huwa ximaaru mu ne képp lu kuñ def lu jar mer te meroo mbaam nga waaw kon ñu def nañu lu jar mer mer nañ te mer mi du meru comme ça rek kusaa kusaa déedéet ñu toog xool wasalaam la ñuy dem ndax euh, gannaaw la nga xam ne euh, waxtu wi daf ñu xoj mhm. cinq minutes moo ñu dese donc du ñu mën a di jàllale yenn euh, ci ay éléments mhm. waaye nag ci Walfnet aussi ci la ñu jaarale mbooleem image wala yenn ci ay live ya nga xam ne ñu ngi ko doon def ni ki démb ak ki démb te it nag leader politique bi di Ousmane Sonko wala sax mu bokkee ci opposition bi mu ñëwee sàkku na ci mbooleem ña nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñu abonné wu ci Walfnet mu doon nag lu ñuy faral di lu Euh, masaw da ngay xool la nga xam ne nag euh, moo jëmale kanam lii lee di euh, kër gi bokk na rek boo ñu sukkandikoo alsan rek maa ngi koy laaj ci suba nee na abonné ñu ngi toll ci huit mille cinq cent cinquante huit mille cinq cent cinquante ak euh, lu teg ci ay abone mu doon nag euh, loo xam ne lu ñuy rafetlu la ndax dañu ne woon rek euh, ni ngi samedi ak léegi huit cent mille plutôt excusez-moi huit cent mille cinq cent sept cent quatre vingt neuf abonné ñuy sàkku rek ci askan wi ñu gën a wëyal ndax bu Babacar daggee bu daggul yëpp dañuy feeñ maa ngi mi mi ngi noonu ah. xam nga nag nit di nga ko yàkkal ba pare mujj koo defaral mm. lii dafa neex parce que ñun bëggoon nañ ko am bu yàgg te amuñu ko comme da koo daggoon nag Euh, nii nii lay demee rek ah. ci leneen ci ay kaddu ah. bokk na ci euh, Macky Sall ay kaddu yi nga xam ne jotoon na ko fi yëkkati bi muy bëgg a jël réew mi di xam ne ni rek euh, Walfadjri taxawaayu Walfadjri ndax dafa am solo ba ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci opposition nekk ci nguur gi xam nañu dayee Walfadjri mm-hmm. ñu xool extrait bi rek dellusiwaat accord waaye nag euh, ci li mu wax rek euh, bokk na ni euh, Walfadjri doonul télé boo xam ne moment bi mu koy wax maa mm-hmm. ah, maa ma maa ngi ñëw ay kàddoom bii mi ngi ko fekk fii ci locaux wu Walfadjri la moom Macky Sall di xamle ni rek euh, ci waxtu wi jamono ji moom mi ngi bokk ci opposition bi tey nag xamle na ni euh, Walfadjri du tele boo xam ne dañu koy xoqatal ndax euh, Sidi Lamine Niass mi fi newoon ñu koy ñaan rek suuf gën a oyof ci kawam liggéey la boo xam ne teg na ko fi ngir jàppale mboolem askan wa nga xam ne nag dañuy jooy wala seen bët dafa xonk mm-hmm. ci loo xam ne nag amuñu dara fu ñu ko fajee ci Walfadjri la ñu yaakaar ñoom jàpp nañ ne rek képp koo xam ne ay kàddu yu Macky Sall ba tey da ngay euh, xokkatal euh, moom Macky président. Mm-hmm. da ngay xokkatal actuel président ndax bi mu koy wax nag euh, doonul président. Mm-hmm. dangay da ngay xokkatal Walfadjri wala nag mbooleem ña nga xam ne ñoo fay liggéey def nga loo xam ne lu teguwul ci yoon la ndax bu dee télé la télé boo xam ne télé askan wi la ay conseil yooyu nag. Mm-hmm. ba tey ñun la ñuy wooyee te dañuy bu ñuy gën di gis vidéo yi. daf ñu yokk doole mhm. yokk ñu jom ba tax na sax mbooleem la nga xam ne dafay faral di am léegi sax du ñu koy doon loo xam ne dañu koy euh, dañu koy bàyyi xel Mélanie rapidement waaw lii vidéo bi nii euh, li nga jógee indi nii VAR bi day wone nii rek maanaam wal fa Walfadjri fi mu yàgg nekk ba tey fëla ne maanaam teggu fa tànkam mhm. tey jii li ko tax a jóg ci loolu lay xëy di dox ba su suba ba ngoon juste loolu rek laa bëggoon na wax daal te mhm. signal bii nii euh, nañ ko indiwaat nañ ko indiwaat parce que comme ni ñu ko waxee rek kër gi dina ko yëg waaye tamit euh, Babacar Diagne comme moom la ñu joxoñ ci mbir mi. Mm. Babacar Diagne moom pour leeralan tey moom mooy parrain euh, jeune reporter yi. képp ki nga xamante ne journaliste nga rek nekk jeune reporter Babacar Diagne tey moom lañ jiital moom moo nekk suñu parrain. Mm. tey jii Walfadjri ça se passe comme ça. il faut penser à l' avenir de ces jeunes reporters. Mm. ñun ñi nga xamante ne suñu suba suñu lépp. ci ay affaires yoo xamante ne kenn xamul ci lu mu tegu. Mhm. on vous demande d'amener la raison. Mhm. merci c'est juste ça que j'avais à dire. c'était na rek di jaajëfal bu baax a baax sénégalais yi. Mhm. ndax euh, on peut dire que bépp jafe-jafe wala bépp nakar bu ñu Babacar Diagne teg ak CNRA rek askan bi moom je pense que taxaweewu nañ ñu ko ca boor ba parce que gis nañu euh, nombre d'abonnés yi nga xamante ne annoncé nga ko léegi ah baax bëri bu baax a baax que ça soit sur Facebook wala YouTube pour dire que même bu fekkente ni dañu dagg signal yeneen voie de contournement yu nga xamante ni dañ fay taataane lépp lu nga xamante dafa ñeer xibaar fii ci Walfadjri la voix des sans donc ñu leen wax que noonu la rek euh, du ñu suñu tànk parce que nekkal fi askan bi moo tax ñu déppee xëy na Walfadjri la voix de sans voix mhm. baatu ñu amul baat et euh, boo xoolee depuis des années ci loolu la nekk teggiwu mhm. tànkam mhm. donc tey ji ki nga xamante moo war xool bopp